الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بك جلدي في سن خطبة بواسو واختان ونن لن في ملوكاني كوريل بوبينغا خمد موم لا يننتبه صلى الله عليه وآله وسلم واخن موم موم مجي moo mucc ci biddaa moo mucc ci sawara kon tey nañ waxtaan lenn ci yi nga xam ne dañ koo jagoo ñi mën koo xamee seenu doxin ak seenu yoon wi nga xam ne ci lañ jaar ba yeyoo melokaan yooyee ba yeyoo doon kuréel bi nga xam ne mooy bi mucc melokaan yooyu walla metod boobu doxin woowu jagle yooyu la ci jiitu mooy fa ñuy tànqe diine fenn fa la seen source benn la boolu mooy lan mooy alquranul karim sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala loo xam ne saxaaba ya dañ ca dëppoo ne lii ci diine ji la bokk wala diine ji nii la ko tëriwoon su boobaa loola foofa la jële diine feneen fu dul foofa nag duñ fa jële diine ñaareel ba moo di bu dara xasee sax ci alquran wala ci sunna muy lu jóge ci sunu borom tabaraka wa taala wala mu jóge ci yonent bi loolu dañ cay jafandu jafandu gu dëgër goo xam ne leneen lu ñëw taxaw fi kanamam duñ ko méngaleeg loola lu ñëw taxaw fi kanam alquran wala na ak lu mu mën a doon doonte sa xalaat ci boppam la xalaat ba dañ koy delloo bu doon xalaatu ab sëriñ boo yaakaar wala nga jàpp ne kii xam-xamu àdduna ak li ci biiram daje na ci moom it ginnaaw yooyoon ak alxuraan ak sunna dañ koy delloo wala mu doon loo xam ne yow day gise nga ko nii ci alxuraan waaye sa bànneex nee la ko bëggee du tee delloo bànneex ba sa guu comme niñ koy waxee su ma sañoon nii lay tëdde loolu du waxinu jullit wala loo nelaw gént ko wala ñu géntal la ko loolu duñ ko méngale wala ñu koy jiital di gannaawal alquran ak sunna ñoom kay dañuy topp li sunu borom tabaraka wa taala wax ne innama kaana qawla almuminina ida duo ila allahi wa rasulih an yaqulu samina wa ataana ña gëm yàlla ñu leen ni nga di xamee mooy suñ ne leen wuyu leen yàlla akub ngi waxi yonent baa ngi lañ cay teg mooy lan سمعنا واطعنا سن لين كاين يلا اكلين موكب يرنتم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا كاين ويسي سين بروم كاين ويسي يرنتبي صلى الله عليه واله وسلم سودي دغين جويو سي مير ñu atté seen digënté alcorane ak sunna nga fi su dé da ngeen xamagut lu ngeen di top ñu won leen yoon wu leer wi ngeen di jaar su boobaa ñu ne ah day dégg nan topp nan borom bi ne wa ulaayika humul muflixuun ñooñe ñooy texe ñetteel ba bokk na ci seeni melokaan mooy lépp lu jëm ci werante ci diine dañ koy wattandiku werante bokkut laaj ak tont bokkut ak waxtaane sa diine ba àgg ca la gën a leer loolu lépp luñ bëgg la dañoo bëgg nit ki ne jàngi su amee lum xamut na ko laaj su leerut ci moom na laajaat kooka ba mu leeral ko ba mu leer ci moom mu xam loolu bokkul ak werante waaye nag werante mooy lan mooy kenn ku nekk ne sama xalaat laa jàpp ne moo war a dox su kii waxee jox ki ki wax delloo ko ñu mel ne ci làmb lañ nekk ku ne jàpp ne su may génn maa war a gañe loolu mooy werante loolu warta nekk ci diine ñoom dañ ko daan wattandiku wattandiku itam képp nit koo xam ne day topp la lënt ci diine am na ay jàngkat yoo xam ne ci diine seetlu wuñ la leer ngir ñu jëfe ko waaye dañuy xool la lënt ñi mën koo won nit ñi wala ñu mën koo yëngal ci kanam nit ña ndax ñu ne ah, kii katu gëstukat la ndax yi muy gëstu yu xóot yi muy xam su doonul woon ab gëstukat du gëstoo nii jullit bi du mel noonu ci jamono Omar ibn Xataab am na waajoo xam ne noonu la meloon ku ñuy wax sa Sabiix Sabiix dafa yoroon ay téere di ko jàng di gëstu ay masala yoo xam ne yu la di ci fitnaal nit ñi di ko def ba agsi Madina ñu nettali ko Omar ibn Xataab radiallahu taala anhu ba fekk mooy xalifatul muslimin Omar woo ko ci néeg ñi bokk toog ñoom ñaar dong Omar ne ko noo tudd mu ne ko man de maay Abdullahi Sabir mu ne ko man méetam de maay Abdullahi Omar ibn ko jaamu yàlla laa boo xam ne Sabir laa mu ne ko man it jaamu yàlla laa boo xam ne Omar ibn kon teg na xilaafa ga fee woon ko ne ko jullit laa comme yow daal di jóg summi gu fab ab yar dóor ko dóor dóor ba deret ji nàcc jóge ci bopp bi mu daal di giñ waat ci yàlla ne ko li nekkoon ci sama xol di sikk sàkk lépp dañ na Omar ibn Xataab daal di koy bàyyi mu solaat yi yéreem kenn demu yoonam keroon lañ mujj a dégg sabiir mu yor yu lënd di ko tasaare ci diggante jullit yi kon ni nit ki di war a aare njabootam war a aar boppam war a aar ñam yilif war a aar sax ay mbokki jullitam ci feebar boo xam ne day tasaaroo ci yaram nit ñi di ko wàllante su leen ne aar ci koo xam ne fit na la yor ci wàllu ay xalaat noonu la leen war a aare kon loolu ci seeni melokaan ci la bokk bokk na ci seeni melokaan mooy li ñu tudde usulu diin muy pas-pas ahlu sunna jamaa duñ ci juuyoo duñ ci juyoo mukk al firqatu naaje ñoo bokk lu fas ci yàlla ñoo bokk nuñ ko gise gëm ne moo bind ñëpp moo leen di wërsëgal moom dong yeeyoo ñu jaamu ko te suñ ko jaamoo ci la ñuy mucce suñ ko jaamuwul dañuy alku gëm ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom rek la yàlla yónni ci xeet wi moom rek mooy koo xam ne lu mu wax lépp noonu la dees ko war a topp ku ko toppul da ngay alku kon seen pas-pas boobu benn la ak luñ soree soree fuñ dëkk ak luñ soree soree ay xeet ak askan ak i làmmiñ ginnaaw seen pas-pas wér na boo demoon ba penku ka nga fa fekk mu jàpp ci sunna nga dellu ba soowu fekk fekk keneen ku jàpp ci sunna ñoo bokk lu ñuy wax ñoo bokk nu ñuy jaamoo yàlla amaana sax déggantewuñ ci làkk waaye fekk benn lañ lu tax mooy dañoo bokk lenn luñ nekk loolu nag ñi nekk ci yoonu naaj naajiye rek ñoo ko am waaye biddaa moom ku ci xas dugg ñaari biddaa ñu nekk am na lu leen wóotale moo tax mu doon ñaari biddaa ñaar yu nekk ñaari kuréeli biddaa yu ne boo xoolee am na lu leen wóotale loola moo tax ñu tudd biddaa moo tax biddaa moom tàqale rek day jëriñ waaye nag na boole rek lay jëriñ bokk na ca loola ci seen melokaan yooyu moo di ak digg dóomu ëpp ñu waaye yeesuñu ëpp ñu ba teengal seen diine ba mu àgg ci ku ko déglu wala nga gis ko xam ne lii kenn attanu ko waaye nag yombaluñ ko it ba kum neex ku nekk nga lu la neex dugal ci diine ji ne ci la kon dañoo dañoo équilibre ci diggante bi lañ nekkoon ëpp lu ñu ëppaluñ yeesuñu moo xam lool ci pas-pas la moo xam ci jaamu yàlla la moo xam ci seeni jikko la lenn lu nekk la ca digg doomu ëppul yeesu loolu moo doonoon seeni melokaan boo jëloon misaal rek seen taxawaay ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay kuréel am na lu mel ni ñi ñu tudde alxawaarij ñoo xam ne dañoo yéefarloo lu bari ci saxaaba yi ba alxulafaa raashidoon sax ñu boole leen ci biir ne ñooñu duñu ay jullit wala yaasu kon ñooñu seen diine na ba jéggi dayo waaye am ñoo xam ne ñu mel ni ñi ñuy tudde shiata yi dañuy yëkkati leen ci saxaaba yi ba teg leen foo xam ne ba watuut moo féete kaw sax place yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala mu yem moom wut lu ñu tuddee ay imaam yoo xam ne dañ ne ñoo ñooñu lu ñu wax rek noona la lu ñu wax rek des koy topp ahlu sunna wal jamaa biñ dikkee nuñ def dañoo fekk ñee teengal giñ teengaloon ba mu jéggi dayoo ba jaaduwut ñi wàññi ko fekk ñii ëppal giñ ëppaloon ci ñii ba yëkkati leen ba xaw leen a def ay yonent wala ay yàlla ñu dindi loolu wan la ne saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp a baax waaye nag ñoom ñëpp ay bindeef lañ yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen jàngal moo leen yar xamal leen kon yar leen yar baax na njàng moom leen jàngal njàng mu jub kon ñoom ñëpp a baax waaye nag téewul ay bindeef lañ te doomu aadama li fee wax yu nekkul di wàcc ci moom day juum kon ñu jàpp ne njuumte mën naa am ci ñoom waaye seeni nji seeni njuumte lu borom bi tabaraka wa taala jéggale la maanaam jéggal na leen ko kon loolu mooy taxawaay bi digg doomu kooku misaal la ci lenn ci seeni taxawaay yu digg doomu waaye bépp masala boo dugg ci diine noonu la mel da nga ci fekk ñu teengal ba mu ëpp fekk ci ñu woyofal ba mu yées ahlu sunna wal jamaa muy alfirqatu ñu ñëw nekk ca diggante bokk na ci loola moo dina ñoom amuñu kenn koo xam ne dañ koy tudde imaam joo xam dañ naan kii lu mu wax ñu jël lépp lu mu ne def leen ñu def lépp lu mu ne bàyyi leen ñu bàyyi lépp kenn lañ ci am muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biir xeetam mi nag ñu baax loola ngi ci ba baax ga yéeme ba ñuy dund ak ñoom sax wala ñu dégg leen dañuy defari ñooñu kenn gënu leen waaye fekk nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp la yàlla jagleel ne lu mu wax noona la wa maa yantiqu an il hawa in huwa illa waxin yooha kum mën a doon nag keneen ak lu mu rëy rëy fi yow ak lu mu màgg màgg ak lu mu baax baax ak lu mu jaamu jaamu yàlla ni ko imaam Malik waxe rek am na ci ay waxam lu ñuy jël ndax dafa dëppoog alquran ak sunna am luñ koy delloo ndax loolu daa juyoog alquran ak sunna kon loolu mooy seen kër mi nga xam ne ci la ñuy dox bokk na ci seeni melokaan ak seeni doxin moo di ne dañuy boole xam-xam ak jaamu yàlla lu mat a bàyyi xel la lu bari ci nit ñi mën nañu sonn lool ci wàllu xam-xam nangoo laaj lool ay masala waaye buñ comparé nañuy xamloo ak nañuy jëfe dañuy gis ak sore lool lool ci xeeti tawat yi mat a faj ci la bokk gis ñoo xam ne dañuy xir lool ci jaamu yàlla fuñ toll fu ne guddeeg ci ñu ngi julli ay rakka ña ngi yor sax di zikkar xeet ñu defe ne jaamu yàlla lu ne ña ngi cay kurkuri waaye bu dee wàllu xam-xam joxuñu ko benn benn itte yooyu yëpp ci seytaane di fexeel nit ñi ci la bokk kon jullit bi dafa war a góorgóorlu ba xam lim xam itam moo koy jëfe <coughs> loolu moo tax boo xoolee seeni mbir lépp ni mu tegoo woon ci xam-xam tax na lenn lu ne dañ koy teg palaasam dañ doon wàkkiirlu ci yàlla ba mat sëkk waaye teewul dañ doon def sabab yi lay taxa am dañ ciy yëngutu ngir am ba noppi wàkkiirlu ci yàlla dañ doon sàkk wërsëg nam gën a yaatoo ba am ko waaye buñ noppee dañuy dëddu àdduna loolu mooy lan mooy wërsëg wu jaralu leen yàq benn du tolle tarfatul ay ni ci seen diine dañ doon boole ragal yàlla ak yaakaar ko dañ doon boole di bëgg ngir yàlla lu ñuy bañ tam bañ ko ngir yàlla dañ doon boole am yërmande lool ci nit ñi ak ci bërëb boo xam ne des faa war a nooyal war faa am yërmande waaye na nga leen fekk ñu mel ne ay gaynde tàng lool ci béréb boo xam ne des faa war a tàng des faa war a tàngal kon loolu ci seeni melokaan la bokkoon loolu xam-xam ba moo leen ko may waaye su woon xam-xam da fekk kuy tàngal foo xam ne des faa war a seddal wala kuy seddal foo xam ne dañ faa war a tàngal wala ku jaawale diggante dëddu àdduna ak bàyyi àdduna àdduna kenn santaane wu ñu bàyyi ko des koy fàggu waaye nag du yàq diine ji day nekk moyen ngir mënee sa dund diine ji bokk na ci seen melokaan yooyu muy ak xër goo xam ne xër nañ ko ak itte joo xam ne am nañ ko lool ci tasaare pas-pas bu wér fexe ba doomu aadama yi ci kaw suuf ñu mucc ci li ñuy wax bokkaale ndax ñu mën a tàbbi àjjana kooku yërmaande féetewu ko kaw ci nit yërmaande féetewut kaw ngay woo nit ki ci pas-pas bu wér ndax mi ngi mel ne koo xam ne daa waaxu jëm ci war nga ne ko kaay fii nga jëm ak daay la wàññikul jëm fii moo am ker yu sedd ya moo am ndox mu neex ma moo am xéewal ya kooku ku yërëmul nit doo ko ko def moo tax ñoom seenu bu woote fa muy tàmbalee mooy wéral pas-pas ba noppi luñ cay teg door caa teg ndax bu wérut xam nañ ne dara du baax bokk nañ ci seen doxin yooyu itam moo di seen pas-pas ak seen diine ñooy ñi ëpp lu ñuy muñ ngir dund ko lu ne nag mën nañ koo daj mën nañoo dégg kàddu yu ne mënees na leen a def sax xeeti lor yu nekk waaye nañuy jàppee ci seen pas-pas ak seen manhaj bañ jaar suñu leen fitnaalee doo ko fekk ci beneen kuréel ci kaw suuf kuréel bu ñu fitnaal rek nga dellu gannaaw wala nga bàyyi la nga nekkoon ba mu des nag ñi nga xam ne dañoo nekk ci ngirum alfirqatu naajiya muy kuréel boobu nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melal ci mucc bokk na ci seenu dundeen borom bi tabaraka wa leen ci ñuy weccente ak yéefarloo kenn ku wax ne sa moroom ab yéefar la loolu mucc nañ ci duñ àtte mukk lenn lu dul ci maandu te lañ ko teg ku ñuy melal ku nekk di wax ne kii ku baax la wala ku baaxut la day fekk ne ci kaw ak maadute lañ ko teg goo xam ne la tax ñu ne dafa baax dañoo gis ci moom lu baax suñ ne dafa bon it dañoo gis ci moom lu bon moo tax ñu ne dafa bon bokk na ci seen doxin woowu moo di seen pas-pas dafa leer nañ yomb xam boo doon jàng pas-pasub lislaam li ñu tuddee aqida ci wépp jàngale wu bokkul ak jàngalew ahlu sunna wal jamaa da ngay yëg ne yan bu diis la boo xam ne kenn xawut a mën a xam li téere yooyu di wax waaye boo ñëwee nag ci téere yi nga xam ne mooy téere yi alfirqatu naajiya muy ahlu sunna wal jamaa da nga gis ne ay aaya alquran yi ñuy firi la ak xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi ñuy firi yomb lool mën a leer lool mën a dugg lool ci am xel lu dul loolu nag da nga gis ñu koy jànge ci yeneen anam yoo xam ne boo koy jàng da ngay mel ne koo xam ne leneen ngay jàng lu dul ak pos-posu lislaam boo xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon saxaaba ya bokk na ci seen melokaan yooyu moo di seenu woote ci lislaam day ànd ak xikma day ànd ak jikko rafet day ànd ak rafetal lislaam ci kanam nit ñi bañ xam ne lislaam lu rafet la waaye seen woote ci lislaam àndut ak xuloo wala werante wala saagaante wala ñëw fekk nit ki toog nga ne ko yow li nga nekk da ngaa doon nangam wala da doon nangam duñ tàmbalee ci loolu la leen tax a jóg mooy leeral pas-pas bi ba mu leer naññ ci nit ñi xamal leen lislaam ji bañ dégg ko ba mu dugg ci seen bopp ñu bàyyi leen ak seen bopp ñu tànn la leen neex loolu mooy xikma ku tànn la la neex na gannaaw boo déggee dëgg boo dajeeg sa boroom danga xam ne tànnoon dëgg moo gën tànn lépp lu mën a doon kon ñoom danañ fexe ba jottali bi daal agsi ñu génn bokk na ci seen melokaan yooyu moo di ku ñuy àndal wala ñuy xaritoog yow wala ñuy tàggoog yow di noonoog yow lépp ci diine rek lay doon waaye du leneen du wàllu xeet du wàllu noo bokk am ngir du wàllu noo bokk ab tariqa du wàllu noo bokk kuréel bu ñuy yëngu wala ab association du jaagi ni loolu moo leen di boole la leen di boole mooy diine ji nit ak ngee daal koo xam ne mu ngi ci diine ji mu ngi ci sonn mi ngi jéem ma dund alxuraan ak sunna kem kàttanam kooka seen mbokka dañuy ànd ak moom ci lépp bu dee xaritoo ñooy xaritoom bu dee àndandoo ñooy naa ak luñ sot luñ ko sori ci askan nag teewut su fekkoon ne ka leen gën jege ci askan wala muy dund ak ñoom ca lañ nekk ca kuréel ba waaye tàggoo am na ci seen bopp ci seen biir ci diine ak koo mën a doon xaritooga day daal di yam foofu ci sa diggante ak ñoom bokk na ci seeni melokaan ba tey moo di ne dégg-dëgg bañuñu ko ci kenn képp ku leen wax dëgg danañu ci jariñu suñ xëyee liñ doon ñaan seen borom tabaraka wa taala mooy dajee koo xam ne daje nag ñoom ba laa biire leen ci loo xam ne danañ ko mën a jëfee su fekkoon ne dañoo juum buñ jéggee ne dëgg ngi nii fa saasa la ñuy daal di bàyyee lañ nekkoon tourné dellu ci la nga xam ne mooy dëgg kon dëgg pour ahlu sunna wal jamaa dafa mel ci ñoom koo xam ne la gën a gànjaru ci yow moom nga soxla jàpp ca nëpp ko bu dëgër di ko dund soo demoon ba mu yàgg nit ñëw ne la am na lu ci fell rot ci lu lool yi nga fonk na ngay bége ca loola xool ko daal di koy for boolewaat ca na nga ciy bége noonu la ñuy bége su fekkee ne nit ka dox na ba mu yàgg mu ñëw ne la yow it am na loo xam ne gis naa ko ci yow loo xam ne juyoon ak na mu xool ko gis ne loola dëgg la ndekete noonu la ci ame mbégte bokk na ca moo di ne duñ def képp ku juyoog ñoom rek ñu ne réer na déedéet rawatina su fekkee ni dafa doon ci ay masala yoo xam ne manees na caa juuyoo ndax dafa bokk ci buntub li ñu tudde ijtihaad daa am masal yu leer nañ yoo xam ne texte la alxuraan a ngi sunnaa ngi kooku amul wax waaye nag daa am masala yoo xam ne boroom xam-xam yi ñoo ko mën a gëstu ñoo ci mën a xóot ba xam lii lu mu doon yooya masala juuyoo mën na caa am su ci juuyoo amee kenn ku ne da ngay def sa effort sa képp kattan xool la gën a jege alxuraan ak sunna nga jëfi ko su ko defee ku juuyoog yow doone ko mukk da ngaa réer wala dangaa ngaa waaye dangay ngay moom itam daa def effort am waaye foofa rek la déggam mën a yam donte da ngaa jàpp ne dafa juumit yow yaa nekk ci dëgg du te da nga jàpp ne am na xaq ci nga ormaal ko ci xalaatam boobee mu jaar ndax bi mu defee ittihaad moom gannaaw bu mu ko yeyoo foofa rek la ko ittihaadam jox nit du def bàkkaar bu mag mukk itam ñu daal di ne kooku génn na diine déedéet def bàkkaar yu mag taxul a génn diine ci ahlu sunna wal jamaa ak bàkkaar ba lu mu rëy nag dañuy xam ne kooku mi ngi ci njuumte mu ngi ci erreur borom bi tabaraka wa taala tëkku na ko xupp na ko waaye du tax mukk ñu ne alku na tàbbi na sawara wala soppib na bi yéefar li fekk nag tàbbiwul ci kéefar ku tàbbi ci kéefar moom mu leer nañu kooku kenn waxatu ko ñooy ñi gën a rafet jikko ci kaw suuf ci seeni wax ak ci seeni jëf ndax dañuy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lim waxoon ne dañ maa yónni ngir ma mottali jikko yu rafet dañu maa yónni ngir ma mottali jikko yu rafet bokk na ci liñ leen di xame it seen itte ji nga xam ne moom lañ jox alquranul karim ci jàng ko ak mokkal ko ak firi ko ak itte jiñ jox xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xàmmee la ca wér ak la ca wérut ak la ca wér ñi xam lu muy wax nuñ koy déggee nuñ koy firee bu loolu jàllee jafandu ca mooy la ca sax wér ca ñu boole koog la alxuraan di wax jàpp ca mu doon seen diine kon itte jooju ci liñ leen di xàmmee la bokk bokk na ci liñ leen di xàmmee mooy képp ku baax ku ne dañ lay roy ku baax ku ne am lu baax lu rafet ci yow loo xam ne royukaay nga ca loola dañ la cay roy di ko jëriñoo loolu nag yaatu na loolu moo tax ahlu sunna dëgg-dëgg mënoo leen a askane sax na ñii moom ci ngir sàngam lañ nekk lu tax mooy xam nañ ni imaam yi nga xam ne dañoo ne ci biir ngir yi kenn ku ci nekk ci sunna nga nekk danga doon woote ci lu baax kon lépp loo xam ne gis nañ ko ci say wax mu gën a dëgër su ci sunna ca loola la ñuy jël kon mën naa ñëw ci benn masala nekk fa ca ngirum Malik beneen masala ñëw ngirum Ahmad ibn Hanbal gën faa dëgër gën faa jege alxuraan sunna mu doon foofa ku nekk ci ngirum imaam ahmad bu loola jàllee mu gisaat beneen masala boo xam ne abu xanifa la wala shafii wala keneen sax ci borom xam-xami lislaam yu mag yi kon sax ci mennum ngir rek moo xam ne da nga ne lu fa nekk loola laay jël lu fa nekkut boolewuma ko ci lislaam kooku ñoom gis nañ ne loolu njuumte la ci diine ndax bu fekkee ne ay jiit dañoo ñëw ci biir diine kenn ku nekk yor lu baax fenn fa nekk fexeel ba tibb la fa gën a baax la nga jàpp ne njuumte la wala nga jàpp ne bokku ca loola nga bàyyi ko foofa ndax dëgg moom kenn moomu ko dëgg kenn moomu ko te it imaam yooyu li ñuy baax baax ak njiiti lislaam yooyu li ñuy rëy rëy ak li ñuy baax baax yàlla yónni wu leen ci nun loolu lu ñu war a xam mu leer naññi la yàlla yónni leen ci nun duñ ay yonent waaye yàlla da leen a yónni ne leen dem leen royi yonent ba sallallahu alayhi wa sallam comme niñ la yónnee yow ne la demal royu yonent boobee kon yéen a bokk ku ñuy roy waaye nag ñu bokk di dox ci yoon am ñoo xam ne dañoo jiitu ñu féete gannaaw faw ñu jariñu ci ñi jiitu ci ma xam fan lañ jaar ba agsi fi ñu jàng buñ xamee ne nag duñ ay yonent yu jëm si ci nun kon dañuy xam ne suñ jubalee nu jël loola su yàlla dogalee ñu juum ci mbir ñu bàyyi leen fa mbir moomee te dellu ca ka nga xam ne kooka lañ yónni ci nun nga xam ne bu boobaa suñ nu laajee lu tax ngeen bàyyi waxi diw sàngam moomee nga xam ne du woon ab yonent danaan ko ah, yow kat suñ borom yónni woon woon diw ki nga nu yónni woon mooy muhammad ibnu abdullahi sallallahu alayhi wa sallam moom lan doon moo tax nu juyoog diw defe naa ne wax loolu mooy gën a jub bis ba ak si ñu ne la ah waaw yow lu tax nga juyoog muhammad ibnu abdullahi mii ma yónni woon ci yow sallallahu alayhi wa sallam nga ne ko ah man kat damaa toppoon diw sàngam moo tax ma juyoog moom su boobaa woowu lay du dëgg bokk na ci seen doxin yooyee moo di maandu maandu mooy sàmmonteeg àq yàlla sàmmonteeg àqi bakkan sàmmonteeg àqi doomu aadama yi waaye nag àq yàlla jooju su taxawee bakkan bëgg a taxaw di xëccoog àq yàlla wala àq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala àqi kuréel ba nga nekk wala àqi ndey wala àqi bàyyi lépp lu xëccoog yàlla ko yonentam ci ay xaq ñoom xaqi sunu borom tabaraka wa taala ku yonentam la ñuy jiital ci àq bu mu mën a doon loolu moo tax duñ ëppal mukk ku ñuy àndal itam duñ ëppal ci sa mbir ku ñuy tàggool itam duñ jalgati say àq du tee dañ lay jox la la nga yeyoo duñ fekkit kenn koo xam ne borom bi tabaraka wa am na ngëneel lu mu ko defal ñi weddi ko ne loolu du ngëneel déedéet loolu du seen taxawaay loolu seene wuleen ki am lu baax axu am na lu baax ki jub axu kay jub na ki am njaxas lii jub na lii dëng na la ca jub lu jub la la ca dëng itam lu dëng la loolu mooy seen taxawaay loolu moo tax ñu maandu loolu mooy maandu tegi duñ tooñ kenn wala tabxasu naas asyaahum duñ fekk ko am dara ñu ne amoo ko bokk na ci yi doxin ak seen xam-xam mooy xam nañ ne kuréel yi jóg ngir di wuti lu baax am na ci kuréel yoo xam ne dañoo tàbbi ci biddaa mooy dañoo sos ci diine ji luñ defe ne lu baax la te fekk loola bokku ci waaye gëm nañ ne ñooñu ñëpp nekkuñu ci benn martaba am na ci ñoo xam ne ñu jege sunna lool lañ am ci ñoo xam ne itam soriwuñ ko am ci ñoo xam ko sori lool lañ nag suñuy jëflanteeg nit ñi kenn ku ne dañuy jëflanteeg yow ci kem na nga jege sunna kem na nga jege sunna noonu la ñuy jëflanteeg yow ku ñuy bàyyi it dañ lay bàyyi ci kem na nga sori sunna kon lool ci seenu maandute la bokk gëm nañ ne itam nit ki ginnaaw ak jullit la donte ci biddaa la nekk ak biddaa ba lu mu xóot xóot du dem mukk bañ yemale ko nag ak ku nekkul ci lislaam duñ ko yemaleeg yahud ba wala nasraani ba wala ñu yemale koog mushrik ba nga xam ne bokkaale lay liggéeyee ginnaaw ci biddaa la nekk boo xam ne àggul ci bokkaale kooku duñ ko yemale ak keneen koo xam ne nekkul ci biir lislaam bokk na ci seen doxin itam ci julli dañuy wax ne koo xam ne dafa feeñal biddaa bu fisq wala mu feeñal ak mbon ak caay-caay li ñuy wax fisq mu feeñal ko bu fisq duñ julli ci seen gannaaw su fekkee am nañ keneen kuñ julli ci gannaawam ku feeñalu càggante googu waaye nag ku julli ci seen gannaaw it ñu ne julli wér na kañ la nit kay am bàkkaar mooy su fekkee ne am na fu mu jullee ba noppi ñëw julli ci seen gannaaw waaye am nga bàkkaar tekkiwul ne julli nga wérut ñu ne nag loolu génne nañ ci benn masala mooy su fekkee dem nañ ba gis ne kii ñàkk julli ci gannaawam gi am na jeneen fitna ju indi joo xam ne ju rëy la mën naa dem ba indi fitna yi bàyyi jàkka ji sax far kenn dutu fa julli ku dul imaam ja wala fitna ju gën a rëy jooju su boobaa nag day julli ci gannaaw kooka te dara du ko ca war bokk na ci fitna yo mbir yooyu yi nga xam ne mën na caa juddoo mooy kii nga xam ne dañoo wax ne ci bidaa a nekk ba noppi ameesul keneen ku ko tane ñi fi nekk ñëpp amaana moo ci tane wala ñu yam moom ñoo fi nekk su boobaa moo fa mën a lool rek moo mën a am su boobaa du dagan nit ka di bàyyi jàkka ja amaa nag koo xam ne dafa dem ba lislaam àtte ni kii moom génn na lislaam def na yëf yoo xam ne lislaam génne na ko lislaam jullit yi am li ñu tuddi imaamul muslimin wala qaadil muslimin mu àtte ba nit diw sàngam tubbi na kooko moom su tabaxoon jàkkaam di ci julli it du daggan kenn di julli ci gannaawam loolu ñu xam ko bokki jullit yi lii kon lenn la ci melokaani kuréel boobu yi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa wax ne bu xeet wi tàqalikoo juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar yépp yeyoon nañ sawara ba mu des benn boobu kon noo ngi ñaan suñu borom tabaraka mu dundal nu ci lañ doon dox ñoom su faatu jotee nuy faatu yàlla na nu faat te fekk ca loola la nekkoon yàlla na nu boole ak ñoom tàbbal jannatul firdaws ànd ak ñi nga xam ne ñoom la borom bi tabaraka defal xéewal ca yonent ya ak siddiquun ya ak suhadaau ya ak nit ñu baax ña ndax ñooñu ñooy àndandoo ya dëgg-dëgg ñooñu ñooy àndandoo yu am ya solo وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين